salaamaaleykum wa rahmatullah lii nag benn menuisier la woon ak benn buur am bis buur bi woolu menuisier bi menuisier bi ñëw mu ni ko dama laa bëggoon a rey ko defee danaa la bàyyi guddi gi nag nga tàggu say waa kër menuisier bi jaaxle lool daal di laaj buur bi ne lu tax nga bëgg maa rey ndax daa am lu ma def wala daa am lu ma wax te waruma ko wax buur bi ne ko déedéet defoo dara. waxoo dara waaye nag man dama baaxoo at mu nekk ma rey kenn ngir euh, soññee ko samay nit ñu gën a liggéey ñu gën a di topp samay ndigal te bañ a mooy samay ndigal ndaxte buur bi da daraan rey ñi nga xam ne ñoom ñoo daan sàcc wala ñuy jalgati di def na ko dul noonu waaye nag dëkk ba dem ba amatul kenn kuy jalgati yoon wala muy sàcc loolu tax nag moom buur bi mu day tànn kenn daal koy rey mu daal di tànn nag kooku nga xam ne moom mooy menuisier bi ci noonu waa nag daal di génn di dellu këram waaye nag mu ngi tiit lool ci li nga xam ne buur bi wax na ko ngir ne guddi gii nii mooy dernier guddi gi mu war a fanaan fii si kaw suuf muy xalaat tamit ne am na ay doom am na soxna am na yit yaay joo xam ne màgget la muy xalaat nag ana ñan ñooy sàmm ñooñee ginnaawam si noonu nag mu daal di toog ci benn xeer jaaxle lool jaaxle lool xamul nu muy def. mujj gi nag mu daal di dem këram nag ba mu yegg si kër gi rek soxna si daat koy xool xam ne kii am na lu ko naqari waaye nag waa moom di hésité si ngir ne da ko ko war a wax wala da ko war a bàyyi rek ba mm, lii xew di bett ko waaye mujj gi nag mu daal di décidé ne da koy wax li xew xamal ko ne ko kat buur bi moo ko bëgg a rey ba ko waxee rek soxna si daal di ree daal ne ko buur bi mënalu la daara jëlal lépp nga delloo ko yàlla sunu borom ci bo soxna si daal dem ah, yàq ñam bi woo gi yëpp ñu lekk ba suur sa guddi ga nag waa ji dëdd jéem a nelaw ba sonn waaye mënta nelaw di xalaat lekk di ko buur bi wax mu nekk mu des noonu ba fajar gi soxna si nag daal na ko jógal julli ñu ko ah de fi mu ne sax daanaka mënumaa julli soxna si ne ko jógal julli suba te nga ñaan yàlla suñu borom bul bàyyi suba gi mu lay rëcc ndax julli suba kat lu bari. barke la te it lu bari ay leer la ci noonu waa ji daal di jóg julli ñaan yàlla suñu boroom nes tuuti rek jant bi daal di fenk am ñu fëgg bunt bi waa ji daal di tiit lool xam ne nag ah dee gi ñëw noonu dee way fëgg mu daal di tiit waaye nag muy dem di ubbi bunt ba nag waaye ànd ak tiit lool waaye ba mu ubbee bunt ba daal di gis soldaar yi taxaw ci noonu nag soldaar yi na ko buur bi dee na léegi nag lañ bëggoon mooy nga defaral ko ab kees ci noonu waaj na ne danaa ko defaral kees gu rafet bu daadi di bég nag kontaan daal di nag sant yàlla suñu borom.